waru ñu leen tok ñu leen tok kër ñuy tok kër ga ñu leen di nëbb euh, lool moy yoon parce que xalé bu nek dafa wara jang parce que ëlëk xalé yi ñoy yor réew mi réew mi ëlëk xalé ñoko yor da ngay gis par rapport ëlëk suba ki ki nga bokkaloon class nga gis mom muy yor ay oto rafet lan lan moo ko may mom da doon jang lool motax ñun ñu wara jang parents yi aussi ñu bay xalé handicapé yi

ñooñu ñoo waral tey ñu naan école inclusive au Séné au Sénégal donc suñu taxawaay tey mooy jéem a sensibiliser la population rufisquoise ci maanaam lu yóbbu xale yooyu ci école inclusive yi pour ñu mën comme ñoom ñoom ak yeneen xale yi ñoo bokk les mêmes droits de l'enfant vraiment c'est un épanouissement la ñu dans la société moo tax tey lii suñu war a suñu taxawaay tey bi ci loolu lay la jublu. c'est-à-dire xam nga gouvernement Sénégal dafa jóg euh, yàgg na di ko def waaye da koy féddali toujours. que ne euh, amul kenn koo xam ne kii dañ la war a boddiku wala ñu dindi la ci li nga xam ne nii moom mooy développement développement boo xam ne bi développement Sénégal la mm. te képp ku ci nekk yàlla def ci yow laago lu caagi ni dañ la war a seppi teg la ne da nga war a bokk lu sa laago ak nu mu mën a mel ñu bokk ci ñi nga xam ne ñi dañ la war a boole jox la ay jumtukaay jox la ay euh, foo sukkandiku ay cislaay mm. yoo xam ne yi di nga mën Euh, doxal ci dëkk bi ba yow loolu nga xam ne nii mooy laagoo ci yow doo ko yëg comme wàññeent comme ça lépp loo xam ne lii développement war na ko laaj ñu boole la ci ni ñuy nga am maanaam euh, foo mën a duggee fépp loo xam ne lii daal amul lenn lu la war a mën a gàllankoor ci lépp loo xam ne lii jumtukaay la pour nga xam ne nit da koy soxla pour mën a dem ci kanam loolu gouvernement Sénégal daf ko war a def ci taxaw euh, dafa gën a yokk nag ay jumtukaayam gën a ubbeeku pour que parents yi gën a xam ne ah laago yàlla moo koy joxe waaye nag bu la ko joxee du caagi ndik daf la ko war a jox ba pare ñu beddi la non non da ngaa war a bokk ñu jël la en charge li ñuy tubaab bi wax jël euh, prise en charge bi dafa war a euh, nekk lu doon euh, lu wér mais nag dafay tàmbalee d'abord ci kër ga maanaam waajur wi xam ne lii ndogal yàlla dogal la waaye du loo xam ne lii daf la war a tënk ba euh, sa yelleef doo ko war a mën a jot léegi nag ñu ne dañuy yee parents d'élèves yi ñu génne xale yi nga xam ne yi dañuy nur ne dañ leen di làq parce que dañoo am laago alors que seen droit la que ñu génn jëm jëfandikoo jumtukaay yi gouvernement bi teg ci seen loxo ndax ñu mën a maaseek ñëpp ñu tudde seen bopp ñi matak ak ñi ñuy wax ay waay laagoog ñi matadi ñëpp ñu xam ne yàlla moo bind doomu aadama ci matadi léegi nag ci kaw matadi googu ci a mottali kunte kenn ku nekk la nga am nga def ko ci pour mu gën a mën a yaatu. doon remercier ñi nga xam ne nañ ñoo ñu permettre ñu euh, am résultat yi ñu am tey parce que kenn umpalewul fii ne xale yi daaw def nañ examen et depuis waa Chérif ñi ngi def examen ñi ngi dans les CM xale yi nga xam ne ay waay laago lañ kon nag ñun dañuy njëkk a ñaax parents d'élèves fi ne leen luñ doon def nañ ko yokk parce que xam nañ ne lii ah xale yi mën nañoo jàng xale yi waay laago yi. mën nañoo jàng ñu bañ leen a yóbbu ñuy dem di di di di yelwaani xam ne xale yi mën nañoo jàng ñeneen yi surtout ñi nga xam ne ne ñi dañuy xoole wala ñi nga xam ne dañuy déglu dañuy dañuy dégg mën nañ nekk ak ñoom ci biir école yi nga xam ne moom lañ am ci quartier yi di jànganook ñoom di réussir même di leen raw sax parce que gis nañ xale yoo xam ne ay way lañ mais ñoom ñooy raw ñi nga xam dara jotu leen. bu fekkee nekk nañ fii bëgg a def caravane bi ah di def caravane bi ak xale yi c'est parce que. projet moo si jàpp bu wax projet faire l'école par le projet faire l'école ma remercie waale projets, projet yep, yi nga xam dañuy yëngatu ci éducation inclusive mais beneen pàcc bi nag mooy collectivité territoriale yi soxal nañ ma torop parce que ñoom normalement bu ñuy fi ñu nekk nii actualité bi dotation de fourniture scolaire dañuy jox xale yi may école yi ay euh, ay jumtukaay pour nous ñuy jàngi te jumtukaay boo ko ba tout le temps doo gis doo si gis jumtukaay yoo xam ne ne waaye laaba yi mën nañ koo jànge ma bëgg heure bu ñuy def seen fourniture yooyu ñu gëstu leen ni ñuy jàppalee ñeneen ñi nga xam dara jotu leen ñu jàppalee ko ñu fexe ba jàppalee ko waaye laaba yi tax ñoom soxla nañ ko te bëriwuñ ci école yi su fekkoon ne na ñoom li ñu li ñu bëgg jàngalekat yi li ñu bëgg ci ay matériel ak yooyu yëpp ñu ngi koy am kon recrutement bi dina gën a bëri